duñ ko nangu suba maa ngi leen jégalu ci guddal bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci nañ dem madame la